bu ñii di dialogue ci bii boor ñeneen di dialogue ci bee boor le témoin yéene kaay naan maan président Macky Sall ma ngay dialogue ca palais F24 di dialogue ca Parcelles Assainies Walf Quotidien naan maan ku ne sa dialogue jàmm ni ñooy Tribune yéene kaay naan ko déet président Bougane Gueye Dany nee na ñoom ñooy dialogue waaye président Macky Sall moom du dialogue ci mim réew Bougane Gueye Dany Tribune yéene kaay naan maan ñaari million carton yoo xam ne xonq na cur moom la fas yéene am ci mim réew ma naan ko gay lu tax nga wax lii bugaan gay dara ci turbine yéene kaay naan mbir mi dialogue dil la fi mu ne sàll daal xàllal boppam ñetteel bi mandat moom la ci jublu critique yéene kaay naan man ku dialogue xam sàll daal ñetteel bi mandat daw ca sàll bugaan gay dara ci turbine yéene kaay naan moo taxit duñ ko ko yombal moom président Macky Sall dialogue gu tayam bii duñ xeex ak moom nag dëgg la duñu song ak moom te kenn duñu àtteeg moom waaye sañ nañoo yor sunu carton yu xonq te bari le naa ko maa ci mën ñaari million laa ci defarlu fas ko yéene sédd sénégalais ñu dem naan Sall arrêteel bugaan ci yéene kaay bi naan la nga war a sax dafa bëri yow Sall dama ne la ñetteel bi mandat du am tey du am ëllëg te élection présidentielle 2024 yi ñu jublu ñëppay bokk sauf yow 2024 président Macky Sall moo dul bokk bugaan a ko wax te naan koon li nga teg Ousmane Sonko métti na ñaaw na xam nga gor dib citoyen fii ci réewum Sénégal nga patam patamee ko jëlee ko dëkk ci fitna ñëw sànni ndakaaru ci këram daal di tëj ñi ne déeta waaye nga ne ay avocat ay député lépp laa ci yamale kenn du man Sonko isolé ko yow président Macky Sall foo ko teg las yene kaay naan man bu ñuy wuy jiwul ñeneen ñaa ngay wuy ji ñaari kaay yi moom seen i kaa fi mu ne moo leen yéem jalo rek réew mi ko di jee naan man Barthélémy Dias kay moom nee na demul Khalifa Babacar Sall day dem waaye Barthélémy Dias moom nee na demul parti démocratique sénégalais ba tey yeyul yàbbiwul yéene kaay bi mel ni ku naan man xaafa yey nag ndax fi mu ne fi mbiri tollu dafa soxla dialogue bi l'info yéene kaay naan man dialogue baa ngay tàqale xatte demagun ca l'enquête ko di jee man dialogue bi fi mu toll ni ci tension la àndal tin naan violence gi ci mbedd mi ngeen war bàyyi te dem wuy ji dialogue bi jibril ñi ngi naan koon fi mu ne ak fi réew mi toll dialogue fi sax ñàkk xel la le soleil yéen a kaay naan bëgg ak bañ a ci yem dialogue national bi dina ubbi tey fii ci réewum Sénégal ñu fas yéene waxtaanee loo xam ne day jëmale réew mi kanam ñi nga xam ne ñoo séq réewum senegal fas yéene koo pencoo waxtaane am sit internet boo xam ne sax teg nañ ko ngir senegal sénégalais dëgg-dëgg wax leen métti docteur kër Diop ci Dakar Times naan fi mu ne day ak fi réew mi toll dialogue fi mënta ne Pape Djibril Fall ci Vox wuyuma bugaan gay dana ci tribune yéene kaay naan leen ku ca wuy ji di nga ñam ci ñaari million carton yu xonk nga xam ni moom laay séddale critique yéene kaay naan man fi mu ne dialogue yi dafa fatt noppi dialogue boo xam ne suñu politiciens yi saa bu leen arrangé ñu teg ko ci réew mi te waxtu wuñ ko defee seeni intérêt bopp moo leen tax a jóg président ki Sall fi mu ne ñetteel bi mandat lay xàllal yoonam naagis ñoo ko topp ci bi ku ci nekk sab intérêt nga ci gis ñu nekk ak politiciens yoo xam ne saa buñ bëggee def leen saf ci réew mi maanaam bu leen neexee la ñuy xeex reyante bu leen neexee ñu àndaat ci réew mi joxante loxo te kenn du ci mën lenn te ku ci nekk nag la ngay ànd sa morom mbaa ngay sa morom sa intérêt bopp la intérêt askan wi moom mësu leen soxal ñu jàpp askanu senegal di bëttir ñeek teg ci suuf xandaa mandiir bàjjo goo xam ne askan wi kenn du ma sa jàll ñoom rek ay noonu démb ci Sénégal mën nañoo nekk ay soppe daar daar ci politique fi la toll ñu nekkee ci plateau télévision yi mel ni ay gaynde waaye bu la lacrymogène joolee nga gis ku ci nekk daw làqu sax ruq yore sax musuwaar di pàccali bët waxtu woowu xale yi ci boppam ñooy génn di ko jaayante ak yi ñoom bu méttee ñi ngi ci plateau yi di wax amul lenn loo xam ne andil nañ ko askan wi du dul ay dil tribune yéen a naan man moo taxit Bougane Gueye Dany nee na leen dialogue dil ngeen bëgg teg ci réew mi te du fi amee 2024 yow président Macky Sall doo bokk te dialogue boo xam ne ña tax ñu naan opposition bokkuñu lan lan ce mën a xaar F24 naan dañu dialogue ci suñu biir waaye laataa loolu ña ngay sàkku Alioune Sarr ñu daal di koy bàyyi nu mu gën a gaawee le quotidien le quotidien naan man Sénégal daal fi mu ne comme film xam nga Ousmane Sonko la ñu jàppee dëkk dëkk indi ci Ndakaaru jël ay téléphone portable am ñeent ci ñoom daal di téye le quotidien ne ma waaye la ñu gis ci téléphone yi doy na waar lool ay nit yoo xam ne dañoo jege président Macky Sall ndeke ña ngay jokkoo ak Ousmane Sonko ba ci ay waay fippu ca Casamance ak i taskatu xibaar ak chroniqueur yoo xam ne ñu ngi doon jokkoo Sonko yéen kaay bi naan man ay avocat moom Ousmane Sonko gannaaw ba ñu bëggee dem këram di ko seddee dañu leen gazé ba mar day taali turbine yéen kaay naan réewum Sénégal day fi mu ne fi ñu ko sóob ci violence buñ ca waxulee day mar taali mën na am ci réew mi à tout moment violence gi nag moom mooy indi faatu bakkan gi di andi askan woo xam ne ñu ngi leen di rey ci anam woo xam ne ñaaw na lool vox populi naan maan cocktail molotov yaa ngi mel ni tulleeg maa la ci réew mi ñu attaqué na kër Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz mel ni kuy joxoñ Ousmane Sonko naan ko moytuma ñeenti nit ñu jàppee leen kër Bart moomee Bart naan ñaar ci ñoom dégguñu sax wolof ña ngi leen jëlee dëkk andi fii ci wakaam benn responsable Pastef moo leen fay ngir ñu taal sama kër ñaar fukki junni lañ leen fayee ca bitim réew Pastef Mermoz di weddi Barthélémy Diaz naan manipulation nga nekkee fi mu ne lii ko di jee naan ministre Antoine Félix Diome day ma ngay xupp sénégalais yi nga xam ne ñoo ne bitim réew naan ña fay def naka sudul noonu di wax askan wi ñu génn daañu leen dar daree andi ci réew mi Walf Quotidien naan kon yaa ngoog sénégalais yaa ngoog ba xam am nga kàttan andi leen lii jee naan man ministre l'intérieur def nag bataaxal seeni réew naan leen jagat andi Sénégal rek Alioune ci ci fo yéene kaay naan réew mi day ñi ngi seetaan loo xam ne maar day bu sottee nar jur jàmm suur su aane ma ma ne la Ousmane Sonko lañu ko defa ñaaw keroog bañ koy jagat jagatee moom Ousmane Sonko dafa xam ne garde du corps am yii dañoo nekk ci liberté provisoire te buñ leen jàppee ay am Ousmane Sonko sacrifié boppam libération yéen kaay naan man terewul ay ñoñam ña ngi leen di jàpp-jàpp gu metti le témoin yéen a kaay naan kon xanaa ak dialogue national bi moo Modou directeur de l'emploi ci deux minutes pour lire l'essentiel naan wuy ji mooy dëgg de ndax foofee mën nañoo ut saafara gu ñu bëgg ci suñum réew Bougane Gueye Dany naan kon wuy ji wu ndax da ngeen fay dil l'exclusive yéen a kaay naan man fi ngi tiit magistrat bii di Issa ñu jaawale ko juge bay atte Ousmane Sonko Sonko nee na ñu ngi xupp fameem ci loo xam ne tegunu ko ci yoon ndax du moom tribune yéen a naan maan fi réew mi fa mu jëm ndox amu fa El Hadj Dia ci le point yéen a naan am na kay nañu woote jàmm te jébbalaat réew mi président Macky Sall ndax nag ku xool ay réalisation xam ne Sall daal moo gën ci mim réew tribune yéen a kaay naan maan Abdoulaye Timbo maire bu Pikine nee na seenu xemem teef du leen lu dul soppi xar kanamu Pikine cœur de ville la ñu bëgg samp ci diggu Pikine fas yéene lépp loo xam ne nguur gi am na ko ci banqaas ñu samp waxo Sénégal te waxoo Pikine 2023 jàpp 2028 sunu mbébét lool la joyanti Pikine waaye tam taxawal ci plan bu développement durable bi Pikine goo xam ne fu waay nekk ci àdduna wërngal këpp di nga ko teg ba te ñee ko libération yéene kaay naan man ak lu mën a am docteur Abdoul Aziz Kébé cancérologue ma ngay xam le ni benn chicha boo xam ne tux ngeen ko jàpp leen ni diggante ñaar fukk jàpp téeméeri cigarette mel na ni tux ngeen ko ak lu mën a mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog